di leen ziyaare bu baax a baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi kilifa gu mag gi nga xam ne moo nekk ci kanamu njabootu Cheikhina al Xadim di a Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko lool ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi eh, ci toolub lislaam bi lépp mu liggéey ko ci sagoom te ñu ànd kook moom waaye di nuyu itam Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne mooy kilifa mooy kilifa kër gi tey taxawu liggéey bi itam nga xam ne eh, lii ñuy fas yéene tàmbali nii incha allahu taala ñoo ngi ko teg ci ndigalam waaye mu jóge ci ndigalal Cheikh Mountakha itam ñu war a eh, incha allahu tàmbali tey jii eh, benn émission boo xam ne dafa jëm ci waxtaane jaar jaari sëriñ bi ñu tudde ko jazaa'u shakur loolu mooy turu émission bi yàlla dogal nag tey jii mooy numéro bu njëkk bi ñu war koo ñu war koo door waaye nag émission la boo xam ne ginnaaw ndigal li eh, danañ leen wax rek li nga xam ne moo ko tax a jóg wax nañ ko mooy jaar-jaari sëriñ bi waaye ci biir jaar-jaar yi dañuy tànn ay téere yoo xam ne dafay nettali dunduk sëriñ bi te doon ay téere cosaan nga xam ne daanaka ma des na koo tudde ay delluwaay yoo xam ne boroom xam-xami yoon wi ak ñi gëstu ci mboorum sëriñ bi baaxoo nañ di ci delloo ci biir nag téere yooyu ñu fas yéene ko tàmbalee téere Cheikhul Xadim bi nga xam ne moo tudd Jazaau Shakuur al Atuuf fi jawaabi Abdil Latiif xam ne tur woowu lañ jox émission bi waaye moo nekk émission boo xam ne ni ñu ko waxee bu ñu euh, jeexalee ci téere boobu di gisaa Shakur al-Atuf fi jawaabi Abdul Latif fas yéene nañoo jàll ci yeneen téere yi ci des lu mel ne minanul baaqi alqadim fi sirati cheikh alxadim bu cheikh Mahamad al Bachir waaye duñu ci yem itam danañ ci lu mel ne irwa un min azbi xubbil xadim bu cheikh Mouhamadul Amin Diop Adagani dinañ ko topp sax incha allah ba ci yeneen téere yi nga xam ne dafa ñëw di nettali euh, jaar-jaar Cheikhina al Xadim bu ko defee kon loolu mooy euh, li nga xam ne mooy jubluwaayu émission bi kon euh, ci kaw ndigal la tegu ñu fas yéene koo tàmbali incha allahu tey jii lii mooy.